jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Dalifort seet si kenn koo xamante ni ci làmb du ñu ko présenté xale la boo xamante ni mu ngi doon def carrière bu am solo ci làmb ginnaaw jaam ak pexem yàlla ak dogalam suñu borom dogal yaram bi sutante woon ñu gëj ko gis ci làmb mu jaral macha allah mu ngi yëg sant yaramam bu baax a baax a baax ba dellusiwaat ci entraînement xam naa ni combat xaar wala bis lay xaar ñu ñëw ngir waxtaan ak moom muy Kaaw Cissé bu Dalifor Kaaw maa lay nuyu. oui ñu ngi lay fay ginnaaw wañ sant yàlla julli si bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ñu ngi sant ñëpp di sant waa Wasaare Lamb di sant waa Dalifor waa Maris Yaraax ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. Kaaw nga nga nga feebaroon ba ba ba macha allah làmb génn ci làmb yàlla suñu borom dogalaat yàlla mi nga xamante ne mooy wéral mu wéral la ba nga dellu si waat ci làmb lan nga ma mën a wax ci loolu. waaw newoon naa si ay tolof tolof newoon si blessure boo xam ne metti na woon trop trop trop waaw mais jaam ak dogalam rek xam nga ñun ay ay kii lañu quoi buur bi ak dogalam jaam moom day sabablu rek xam nga. ndog-ndog ñëwoon na xam nga carrière bi xaw a arrêté ma newoon si allure bu doy waar tegle huit victoire après ma am blessure léegi blessir boobu nag dama newoon di ko traité waaw depuis 2014 ba léegi maa ngi koy traité mais instant yi fu mu ne nii sant yàlla baax a baax a baax. mën nañu xam blessure bi lan la. Ah, blessure bi nerf sciatique la woon dama amee woon nerf sciatique quoi waaw mais léegi naaj si wër na. dem nga ba faju ba xam ni macha allah daal sant yàlla. waaw faju naa ba wér gisoo boo gisee lu may physique nii nga xam ne instant yi moom yaram bi naaj instant yi combat laay mu ñëw xam nga ma def li ma doon def. waaw. bi ngay jóge ci làmb ñaata combat nga mujjee bëri. man maa ngi bëri dix combat am huit victoire am deux défaites waaw. nga daanoon kan. daan naa Angleterre daan bébé Balla daan Tafa Junior. bu dóor dóoraat. Angleterre bu dóor dóoraat. Hmm. daan Tafa Junior bu Faas. Hmm. daan Baara bu Faas. Hmm. daan mobile 2. daan Aykon. mobile 2 mel bu Grand mobile bu Grand Yoff waaw. man maa mujj si koom après ci la duggee si kalaaf bi noonu waaw palmarès bi daal riis na quoi deux défaites kese laa am. karakana la daan. Ama Sène junior moom a daan mooy ki war a bëre kii nii Boursine ak ak Drogba bu Kër Massar mbooloo ñaari défaites yooyu rek laa am si làmb waaw. macha allah nga tudd fi ay champion yoo xam ne fi mu toll nii ci làmb ñoom bokk nañ ci ñi fi teg tànk Angleterre maa ngi dégg combat am bërki démb rek nga xam ni Ousin production moo ko tëgg maa ngi dégg benn combat am euh, nga jóge ci loolu tolof tolof dikkal la nga duggaat ci làmb bi nga bi nga feebaree xalaatoo benn yoon génn ci làmb wala yaa ngi xalaat wér rek ngir bokkaat ci làmb. non moment boobu nag xam nga xel bi toogul woon quoi xel bi day naan bàyyil xel bi naan ñëwaatal xel bi day naan bàyyil xel bi naan ñëwaatal mais après waa Dalifor ñoo def lu rafet quoi ñoo def mobilisation jël seen seen moyen dajale seen dakaar ak seen njambaan xam nga lépp jox ma ne ma demal faju ji nga defar retour si làmb ji da nga ci am place da nga ee bokk ñoom ñoo gën a tax ma ñëw ñoo ma encouragé tey jii mënoon naa nekk si tolof tolof yooyu ñu may xarab naan ma ay mbër bu yàqu affaire yooyu di ma wax yenn action yoo xam ne daf may découragé loo mais ñoom ñoo ma gën a indi ñoo ma ne ñun xoolal nu mu munti demee rek na nga bëri demal nga bëri loolu lañ la loolu rek lañ la sant demal nga bëri moo tax fu mu ne nii xam nga lu ma sant entraînement kese ñoo ma res samay lépp ñoom ñoo ko res entraînement combat am ma dem bëre def li ma daan def ndox du bàyyi yoonam waaw. est-ce que Kaaw Cissé mi ñu xamoon ci doole ji macha allah ci mën a bëre gi ci dégg gi est-ce que Kaaw boobu mii nii mun nañ koo gisaat. waaw xam nga xam nga maa ngi entraînement moom lamine bu rëy la rek boo summeekoo lay feeñ boo taxee fi naan maa ngi entraînement te entraînement woo bis boo summeekoo gars yi xam ko. te Kaaw Cissé moom ku ko xam xam ko ak état lamb moom Kaaw Cissé ku ko xam xam xam ko ak état bu ma amee combat ba summeeku ba ñëw taxaw gaa yi nañ xam ne booy bi liggéey na booy bu ndaw laa 89 laa juddu événement naar yi 89 laa juddu tollaguma fu may ñàkkee ak fu may amee waaw am na mbër yu fi jaaroon gën a métti la te tey jii ñu ñëw nekkaat ci kaw oo topp kon tey jii boo xoolee lool rek jarul ngay découragé waaw. may wax benn firnde rek boo xamante ni Kaaw Cissé mi fekk naa ko stade bi nga xamante ne mooy state église ba terrain église mu bëre fa moom ak métro bu dóor dóoraat ñu bëre mu daan ko mais keroog bi mu dugg see ci làmb ñi àndoon nag métro yëpp bi mu simee ko dañ doon jooy parce que état de forme bi mu yoroon ak allure bi mu bëree ak ni mu bëree ci façon bëree bi mu bëree ba daan ko kenn la koo xamante ne làmb mënuñu koo fàtte waaye ginnaaw ñi nga xamante ne da nga leen a daanoon xëy na am na fu ñu yegg ci kaw pour nga yegg ci kaw nag faw nga def ndànk-ndànk wàññi boo gis ci benn lay commencé sa retour fan nga jëm. waaw sama retour maa ngi maa ngi xool koo xam ne nangu na bëre Kaaw Cissé loolu mooy problème bi quoi kan mooy nangu bëre Kaaw Cissé fu mu ne mbër yu bëri ñu ngi leen di wëri nag mais nanguwuñu am na mbër yoo xam ne maa leen daanoon ñu ngi feneen waaw loolu dëgg la ñu ngi si kaw mais buñ bëggee tamit nañ ñëwaat ma may leen revanche ma jaar fi ma jaaroon waaw. comme yan mbër. mbër yëpp mobile bu ñëwee ma may ko revanche jaar ko fi ma ko jaaroon waaw. mobile dafa diis waaye ban diis mobile nga may wax. mobile dafa diis de gis nga état de forme bu mu yor États-Unis ba ñuy bëri la gën a nekk si état te bariwuñu wuñu une minute yu mat man sama combat mosul dem une minute prix dib la mu jeex tàkk. waaw prix dib mu jeex gis nga fii Dalifor booy dañuy mbapat dañuy compétir caatu waalo barki démb la jël nag man it noonu man bu dul arène bi damay dem compétir yi mbapat yi waaw. saison bi bi mu ubbee ba léegi diggante daaw ak ren yaa ngi yëngu ci bëre simple. non saison bi mu ubbee ba léegi démarré gu ma si lutte simple bi nag. daaw nag daaw tamit démarré wu ma saison bii nii laa war a démarré quoi hmm. waaw. kon daal ku ne dina na gëstu ni Kaaw Cissé bu bees di dinañ ko gisaat incha allahu ren. waaw Kaaw Cissé bu bees tàkk kay jën moom jeexul géej. jën moom jeexul géej li mu ngi fi. waaw dañ ko siy tegaat rek ay booy yu ndaw lañ ñàkkuñu dara suñuy morom rek ñoo nekk ci làmb ji suñuy morom kese ñoo fi nekk te ëpp ñuy sañ-sañ dàqu ñu bëre gonuñ ñeme entraînement. mbëri ñuy coow fii yëpp dañuy dajeeg ñoom place entraînement dañuy daj ñii dañuy daje géej ñii dañuy daje diin te luñ fay def ñoom duñ ko fa def dañuy daw benn aller retour sol seen yére dem ñibbi te ñun loolu du ñu si fekk dañuy job ba naaj génn. bu mobile ñëwul léegi koo bëgg à part mobile. bu ñëwul booy bu bugg jël avance bi rek na ko jël booy boo xam ne kaw Kawsee dafa daan seen écrit jaxase leen rek na nga ñëw. waaw gaa yëpp nag bàyyiwuma kenn ñun moom doxuñu si ay cent pour cent yooyu noonu ñun Dalifor lañ dëkk. waaw bokkuñu benn cent pour cent ku ñëw dañuy bëri. amul ma Samba amul ma Demba. lu ma gën a diis nag gon ma arrangé. maa de ponk maa de euh, la la sama waaja doon wax naan nag bu raamu laa nag yaa may daw waaye daw ma benn nag yow moom daa mel ni dawoo kenn fi mu toll nii. man éléphant la man maa ngi la l'éléphant de Dalifort boo duggee Dalifort éléphant ngay dégg doo dégg Kaaw Cissé sax doomu ñey kenn du ma ñaanal kii rëy gudd fan rek lañ may ñaanal waaw. guddee fan rek rëy. kese amul leneen. kon ñu lay jaajëfal équipe bi yaa ngi a fi nekk. xam maak samay booy Kaaw Cissé 2 mu ngi fi caatu Kayre. caatu waalo bunaama ñoom fallaay fallaay numéro 2 ñoom liiru jaan trondoo liiru jaan menn boo yu bëri ñu ngi fi ñoo xam ne ay avenir lañ quoi Kaaw si mu ngi war a bëre grand komba waaw caatu kay rek tamit am na combat si combat jet lii bi ak jamteer yi Kaaw ñu ngi koy encouragé xam nga. lamb noonu la quoi kuy bëree mooy daanu moom it suñu booy la. Valdo tamit noonu ñu ngi koy encouragé di ñaanal mburu Dalifor yi am combat yëpp yàlla na leen yàlla may ndam mais site bi moom man sama site la quoi wasaare. waaw amul lu muy teg mu rëcc ma. fa laa abonné waxoon naa leen ko arène nationale ba. nee naa leen man wasaare amul lu muy teg mu rëcc ma. chaque guddi moom laay seetaan. interview yi ngeen def yëpp yi ngeen def ay États-Unis ay France yëpp dama koy seetaan. site bu ma neex la quoi. dama leen di bëggee bu baax a baax. moo tax sama retour bi xam naa ne dañ defaat beneen beneen beneen tournée la ñuy defaat boo xam ne à part la waaw boo xam ne da ngeen di ñëw gàlle xam nga ñu toog waxtaan. waaw waajal bis ba waajal bis ba retour bi isbak bi la ñuy waajal. doomu gaaf giroo bi ñëwaat. doomu gaaf giroo bi xam naa ne bis boo wàccee arène nationale dogali rango segoor bi. loolu beneen affaire la te arène ba ñun ñoo ko moom ñun waa Dalifor ñoo ko moom suñu site la technopole ak Dalifor zéro mètre la bu ñuy bu ñuy dem dañuy dox bu ñuy dem dañuy dox dañ koy jàpp mais bu ñuy ñëwaat gars yi nañ xam ni ñëwaat nañ de gaa yi nañ ñu xaar rek xam nañ lépp nu mu demee nag gars yi kuy dem la ñuy bañ a gis moo tax ñu lay jéem a freiné xam nga pour mun a jàll mais yooyu yëpp jeex na fi jën jeexul géej laa wax. jàpp ni dañ laa freiné woon. dañ ma freiné boo déggee békaay nu mu doon taggee Kaaw Cissé ay tafaaga yi magul làmb yi xam nga heure bii ñu ngi woon feneen newul woon sax fii nii mais xam nga làmb ji moo demee noonu quoi boo nekkee ci yoon ñëpp lay sot xam nga pour arrêter la pour ñoom ñu mun a tàllal seen yoon normal yenn mbër yi yëpp di calli calli comme si musaan téye mbapat duñ mot une champion yi ngay dégg fii ñëpp jaar naa ak ñoom mbabat ku si nekk tër naa la. lan nga jàpp ni ñoo la freiné mbër yi amateurs yi supporters yi wala ñan la. xam nga am na mbër yoo xam ne tey jii dañuy coow seen combat te ñoom xam nañu bëreeg ñoom arrangé wu la les ñoom dañ siy def lu ne seen képp tulaay kattan dañ ko siy def. pour làmb ji bañ am. pour làmb ji bañ a am na ni bëriwul ak yow rek bàyyi la yaa xëy nga dem wuti sa wërsëg. waa gis nga mais làmb ji mooy loolu da ngay waaru. gars yi duñ dem te duñ la bàyyi nga dem dañ lay bëgg ne xam nga jàll dem te yooyu noonu doxul lii foo rek day jeex benn temps bu ndaw la rek benn dix ans quinze ans nga pare dem defi leneen. mosoo fi gis ko fi bëri ay trent ans de carrière amul. toll nii yaa ngi yëg alhamdulilah yaa ngi sa santé bu baax a baax a baax. waaye fu mu ne nii déggoolum la combat bu ñëwoon léegi léegi ma sëgg bëre ji. combat combat soog laa bëgg combat tension waxuma soog sax combat boo xam ne tension la tension buy monter nag. tension buy monté te du wàcc combat boobu laa bëgg. mbokk yi jërëjëf jëf kooku. avant ah. a waaw ba nee na avant ngay avant ngay feebar am na ci mbër moo doon waaj a jël wala ku nekkoon sa xel mi. non boobu maa ngi woon si avance maa maa maa moo taxoon Pape Cargo après moom dafa mujj dem voyage yi. Ah, dafa voyage mu ngi Italie mm. waaw. Mm. après après Pape Cargo ci ci Pape Cargo moment bi ñuy wax seen combat yi ci nga ci nga ci nga feebar. moment boobu combat bi taxaw na ba ma jël avance. après ji bi combat bi jege see nag ci la blessé. après beneen saison bi moom ci la voyagé quoi. waaw kii moo ko tëggoon Saint bu Saint bu Dieng waaw. waaw. léegi boobu noo mujjee ak moom. avance yi non Saint sama waay la nee na ma téye ko rek saayo yoo kiiwee xam nga ndax dama si doon faju quoi. dama si doon faju xam nga di si dox yenn action yi. léegi dama ko ne saa yi mu amaatee combat rek naa la ko remboursé mu ne ma amul benn problème. kon Kaaw ñu ngi lay jaajëfal. waaw di leen jaajëfal waa wasaare. c'est la fois tele ñëw fi quoi sit internet bi ñu ngi leen di ñaanal mu doon xoolal seen yu mag na romb canal loolu lañ leen di ñaanal yàlla waa wasaare lamb ndax da ngeen da ngeen yemale mbër yëpp amul mbër bu ndaw amul mbër bu mag ñëpp ngeen yemale man damay seetaan damay seetaan chaque jour damay seetaan di leen ñaanal baax baax a baax a baax a baax leen bëgg yéen a ko xam de mais yàlla leen ko yàlla defaral. jaajëf. jërëjëf amin rek lañ ci mën a teg ñaan wi sedd na xol wax dëgg waaw góor taxul góor doonaat beneen góor waaye tax na góor góor góorlu ba keroog muy moom yi ñu ngi koy jaajëfal moom Kaaw se di leen jaajëfal mbokk yi ñuy seetaan ñu leen di tàgg ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jaa ngeen jëf. tàng muy gaaw